siiw du des gens qui n'ont pas perdu leurs droits civiques et c'est là où la société civile a pêché, par exemple dans son discours politiciens yi mën nañ taxaw di ñaan amnistie mais je crois que société civile li faire comprendre à ce régime que Karim Wade et Khalifa n'ont jamais perdu leurs droits civiques man d'ailleurs aujourd'hui je l'ai écrit dans un long article et je l'ai et, je l'ai bien motivé Nous nous perdre des des droits civiques donc qui perd les droits civiques am mënuloo l'amnistie. ñaanal amnistie mhm. ñaanal ko amnistie yow nga reconnaître de facto que nous qui daf ko perdre alors que nous, je crois le seul discours qui va, moi ñu xeex à ce que nous devons ni ak yelleef ñu parce que tout simplement dañ donné un ils n'ont jamais perdu le droit civique. Ce sont des juges qui expressément doivent prononcer ces peines complémentaires alors que amul ben juge bo xamanteni prononcer nako na ko amul juge bu prononcer la déchéance de leur droit civique. Assane dafa bëggoon rebondir ci opposition bi parce que ñu ngi wax opposition ñu xeex croiser les bras tok ci ay salon ak walum kasso bi kasso bi mi teud d'accord mu koy moytu tant que sénégalais man mom wax naa ko sama yaay wax ko samay doom tant que sénégalais yi amuñu jamm. Hein man Assane Diouf jombalewuma sama bopp kaso garanti xam nga lu tax Serigne Touba laa wax ne moom laa yaakaar dundam yëpp da koo tëdd dund gi yëpp du xam nga loolu ah dund gi yëpp da koo tëdd kaso fekkee man ki ma yaakaar moom moo tëdd dundam yëpp kaso ak li ko yàlla may yëpp waxuma laa man nga xam ne du ma dara léegi nag bu ñu demee ci opposition fii grand yu bari moom ah ngoon jotee xoolal

maa toog def live ne leen Idi mi ngi woon kër Macky ci la génn di wax ne Serigne Mountakha moo wax ne nañ teg lépp ci suuf da doon kàcc jamono boobu ma wax ko directement mais dañ ne gaan bi mi ngi waxati de mu toogal boppam ne de quinze mois maa ngi dugg ci roq bi di génn dëgg loolu dëgg voilà léegi noonu la ñeneen ñi toppee yoon bi ñoom ñëpp nag xam nañ leen ñoom ñëpp xam nañ leen benn tuuma laay teggi Khalifa Sall ah, dama dëkk ak moom 15 mois 15 mois man ak moom ñoo bokk Khalifa angle Assane Diouf cest biir prison garde pénitentiaire yi xam ko xolal taatu miir bi la sama Khalifa bu génnee ci man lay ñëw su ma ci li ci des yëpp dañ ñu ko interdit ñooy toog ci taatu bi mois lépp lu ñuy wax ci moom ah barki yonanti yàlla Muhammad quatre-vingt-dix-neuf pour cent yëpp ay kàcc la te man xam naa ne ah moom yabuma sax man man mi may gis xalifa sama grand frère sama lépp yabuma man bay nekk goloria moom xam na loolu. moom nee na bëggul meew. parce que déggoo moom damaa xam li may wax dama xam li may wax de yabuma man Assane Diouf ba moom muy nekk goloria xalaatu ko.

gis nga loi yi Macky Sall di tek yëpp. fu muy du conseil constitutionnel hein xam nga loolu lu muy tekki. billaahi wallaahi wataalaahi sénégalais caméra baa ngi nii maa ngi conseil constitutionnel validé na troisième mandat wu Macky Sall ba pare. garantie li ngay wax yan preuve nga ci am Hassan xolal man nee hmm. dama def Amérique dix-sept ans. xam luy manipulation. xam lu dul manipulation xam tamit luy jeu ak lu dul jeu yaa ngi dégg lu ma la dama jóge fii nga xamante ni ñun boo sañsee sax yow ñu ne dafa tubaabe sañse rek nga yor kudd ñu ne dafa tubaabe nga teg taabal ju rafet wala kër gu rafet ñu ne dafa tubaabe man nag dama dem dëkk ci seen biir dëkk bi ëpp démocratie ci àdduna bi xam luy manipulation ak lu dul manipulation man kenn du ma manipuler moo tax bi xorom jotee ma jóg xorom te xamoon naa ne fa la sénégalais yëpp jëm <laughs> loolu moo am mois de marse bii passé parce que ubbi sa làmmiñ wax ci yenn musiba yi moo tane xamali ma la ni ko Aliou Dunguru saw waxee nañu génn ci biti rek bu ñu génnee ma woon la ne maay borom jaas yi du loolu la wax ñëpp di ko dégg ah. moom loolu la xam mais ñun xam nañ lu raw loolu

to heure bu ma joteeg nen ne rek di dem di kalaame ci sañ Saliou damay dem ba damay soof sañ Saliou parce que sëñ Saliou li tax moo may soof sëñ Saliou mooy lan moo tax man may dem di fekkee sëñ nen ne chaque jour ba ba am lu ma fa naqar yi di ñëw ci sëñ Saliou du dëgg ah? su ma la ak sa yoon a ah, jël sama yoon ànd ak askan wi toog rek nañu jël seen temps di expliquer sénégalais yi lan ak yan loi la ñuy teg ci biir assemblée bi balaa ñuy egg ci di ko voter comprendre nga li ma la nañuy jël temps boobu te bàyyi xam nga manipulation parce que Macky Sall benn affaire dong la am muy manipuler opinion loolu mooy numéro un ci moom kenn rek laa xam ne moo ko ci raw ci àdduna muy Daniel Trump te xam nga nan lañ ko def dañ ko éliminer ci lépp Twitter Facebook everything parce que manipulation moo tax moom dina egg foofu parce que ñun ñoo koy yóbbu foofu léegi nag bu ñu demee ci xam nga nekk di wax ci xam nga affaire comme li Cheikh Omar wax Pikine Baye Fall bi boo nangoo Pikine rek ma bàyyee laak pikin xam nga lan laa bëgg Pikine ah li ngay toog di xeex chaque jour parce que dama lay déglu comprendre nga li ma wax man ak yow ñoo bokk lépp man xeexuma dara man jàmm askan bi laay xeex parce que boo amee jàmm dina am jàmm bu sëñ Saliou amee jàmm am jàmm mais su ma amul jàmm doo am jàmm soo amul jàmm du am jàmm loolu mooy Sénégal parce que ñoo bokk fu ñu dëkk kër gi bu ñu nekkee bu kenn amul jàmm rek kenn keneen ki du am jàmm te loolu mooy corona moo <laughs> day daw ci ngelaw li bu la laalee fi mu toll nii laal ñun ñëpp du dëgg ah léegi nañu xeex pour suñu Sénégal xam nga Macky Sall nañ ko éliminer parce que Bougane joxe na signal bi ba pare xam signal bi mooy lan presse bu Sénégal commencé ko ci nen ay chemise bàyyi leen bu ñu toogee ci plateau yi ngeen ñuy wax Macky Sall Macky Sall Macky Sall bàyyi leen lool non ngir yàlla dama leen koy ñaan parce que moom loolu la bëgg xam nga day bëgg ñun ñu concentré wu ci moom di wax mu defe ne moom. <laughs> egg na mais li nga li bëgg dina compliqué président de la république mënuñu toog te dañu wax ci moom d' accord naa mais gis nga États-Unis ah ak koo mënti doon nga nekk gouverneur wala nga nekk maire wala nga nekk président boo demee ba amatuloo njariñ Trump xam nga lan moo ko daaneel. dafa dem ba maanaam taux de xam nga. popularité am popularité am. Mhm. xoolal presse bu États-Unis ñëpp àndandoo. Mhm. wàccee ko ci suuf. ne kii comme buy wax waxu dof rek lay wax ñun du ñu bàyyi suñu njaboot yi xam nga di déglu ay kàcc wala yenn affaires yi xam nga dootuñu ko bu ñu duggee buy tonalité bi di ñëw. hallelujah.